Seex Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ña daa jabar ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far tey jële bis boo xamante nii moom la Sëriñ Tuubaa tànnoon dajeek boromam muy bis bu màgg boo xamante nii li bokk ci yoonu murid ñëpp ñoo ngi koy màggal rawatina waa Daaru Xuddoos ah fi ngeen nekk nag mooy kër Serigne Cheikh Sikab di doom Serigne Sall ambassadeur moom Serigne Modou Moustapha ah moom nag muy koo xamante nii mi ngi toog fii di jaamu yàlla di liggéey ah di jàng alxuraan di jàng xasaayit di jaamu yàlla comme ni ko maamam ji bëggee woon. ah ba demut fenn xanaa dafa toog fii rek di jaamu yàlla ah tey jii nag mi ngi jóg ci dundal bés bi ak di gindi nit ñi di leen teete ak di leen jariñ àdduna di leen fas ñu yéenee jariñ àllaaxira ah moo doon koo xamante ni itam mooy sëtub Cheikh Moudou Moustapha la maanaam baayam Cheikh Moudou Moustapha waajuram sëñ Tubaay maamam mu ngi tudd nag Serigne Cheikh Mbacke ñu tudd woon ko Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba tax ñu ngi tudd Serigne Cheikh Sikaab ah ñun nag li ñu xam ci moom mooy lii mu def rek bisu maamam bii daal waxtu toujours mi ngi ko fekk ci jaamu yàlla xam naa lam cay dolli daal mooy xamoon ne bis bi moom la Serigne Touba daje woon ak sunu borom bi tabaraka wa taala waaye liñ ciy fas def ci façon jaamu yàlla ak ay ak yëpp moom fekkoon na moom mu di ko def léegi nag nun taalibe yi tey dañuy xëy ñëw ci moom ñu àndandoo bis bi muy teral nit ñi di ànd ñoom ci njàngum alxuraan mi eh, salaatu ala nabi njàngum xasaayit ah, yan doo ko bis bi ba ngoon mu fanaanoo ko loolu daal la ñuy ànd moom ci biir liggéey bii bu fekkee jëmmam ngay laaj nag mooy jaamukatub yàlla boo xamante ni ah, booliwut dara ak sunu borom eh, sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko téye fukki loxoom li muy doon doon sëtub Sëriñ Tuubaa doon taalibe boo xamante ne bu ràññi ko la it ba nga xam ne boo fi dikkee da ngay yaakaar ne sax kii du sëtub Sëriñ Tuubaa nag ci yar ñun ñëpp ci la nekk ak moom waaye daal na ngeen xam ne fii daal bis la boo xamante nii euh, dañ ciy liggéeyal Sëriñ Tuubaa kër ñëw ngeen ci kër goo xamante nii ci këri Sëriñ yi la bokk euh, ñëw ngeen ci barab boo xamante ni li ngeen di laaj ci yoonu Sëriñ Tuubaa lépp warees na ko fee mën a wax ndax yoyoon na ko fi te it fekk ngeen ko ci biir kër gi waaye Cheikh Moudou Moustapha day mooy Cheikh Moudou Moustapha mooy maamam ndigal sax moo ko taxoon ñu tuddi ko ambassadeur ndax ndigal ko yóbbuwoon ci mu nekk ambassadeur waaye teeku yàquroon dara ci taalibeem ci loolu la nekkoon di dimbale nit ñi moom mi itam ci loolu la nekk digganteem ak ñi nga xamante nii ay magam lañ di Sëñ Amadou Mokhtar ak ñi nga xamante ni ay waajuram di Sëñ Amadou Mokhtar ak ay magam yi nga xam ne ñoo fi nekk eh, ñoom ñëpp daal kenn ku ci nekk jox na la wàccuwaay ba nga war a am jox ko wàccuwaay bi mu war a am taalibe daal la ñu xam ci moom boo xam ne booyeef tooy la bu at nangu kilifteef bu nangoo yilife it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 la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma wootelo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootunu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamb baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag jikkoom war si Mustafa cheikh moustapha gee jum gëneel waaju ak duy ku bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa moustapha ndoxo maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi moustapha ma nga tuuba bi tëj di diinihi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 بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلي مباكي واكو كيك لغان دام ديكر ndeyam ña doon kaañi kànkaañ ba koleeraam fa mustawa kulo wasra boo dex gaa ngi fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustawa ولا يستوي البران عصب سرابه وملح أجاج بالخياس نتك مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen baal wàq di leen balaax di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm tey ñoo ngi fii ci Daaru Xudoos ngir fesal bis bi nga xamee ne moom la sëriñ bi ñibbisee woon ci dëkkam bu sell bii di Touba dëppook dimanche fukki fan dëppook talaata fukki fan ak juróom-ñeent 1445 ci atum jullit ñi nemmeeku nañ tey jii bi nga xëyee amal nañ sunu seetlu ci bunt këri Cheikh Moustapha yëpp rawatina ci ñi nga xam ne ñoo doon ay xalifaam ñëpp ndax bi ñu jugee dem nañ kër Serigne Mbacke Madina fekk fa ki nga xam ne moo fa teewal Serigne Cheikh Bombali di ab xalifaam di Serigne Cheikh Gaynde bi ñu jugee foofu it noon lañ ko amalee kër Serigne Cheikh Aliou Mbacke kër Serigne Cheikh Aliou bi nu jugee foofu it noonu lañ ko it amalee kër Serigne Saliou ambassade fekk fa ab xalifaam bi nu jugee foofu it noonu lañ ko amalee it kër Serigne. kër Serigne Cheikh Waalo Mbacke comme niñ leen ko mën a tënkalee tuuti daal tey daal ñoo ngi fii ci Daaru Xudoos màggal gi nga xamee ne moom la Serigne bi ñibbisee woon ci dëkkam bu sell bii di Touba kon ñu ngi leen di jox dig dajee ci kanam tuuti incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullah